na ci indi leral way tamit euh, ñu ngi barki Dembo ndjay la ci weekend bi yëpp nañ ay by election si yenn ward si bir euh, Greater Banjul area bi gis nañ ñu election bi tëddee nañ ci wax cabinet bu bes, bu president bi samp nañ ci wax nañ ci wax tamit leneen inshallah allah euh, ñu def non rek nuyu ko mom Dahaba bu NPP ah, Dahaba APRC won wala APRC ba léegi lañ ah, ñu ñu bayla nga nga nga nuyo ak wa Gambia ak ñu lay sétane ci réew mi ak ci diaspora bi yépp xamna namu neñ la lool tay amad la fi mbégte la ñu waxtaan. jërëjëf nak nagam sool. Amadou Amadou. Mhm. Ah, ganaw bañ senti yalla ci lu ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, gërëm suñ ay wajur suñ ay dëkkandoor suñ xarit suñ famille bi euh, di. ñaanal réew mi jaama ah, di leen delloo nuyoo bi ak sa naataango bi toog ni muy Modou Niang ah, maa leen a nuyu di leen di nuyu Gambie yëpp ah, spécially diaspora bi ba pare di nuyu waa NPP yëpp bàyyiwuma kenn di leen gërëm di len ñaanal yàlla si euh, wéri koor gi ñu jógee nii mm-hmm. euh, tobaski bi ñoo jublu ci ni yan nañ ko euh liñ bëgg yan nañ ko yalla suñu borom ji euh, defal di ba pare di woné suma bégte ak suma contenté si li ngeen ma invite ni ba paré ñëw na fi tamit sét na fi gis na fi an order development ay Africa TV jërëjëf jërëjëf moom xam naa bégte la ñu am ko ci jotaay bi euh xamna am yow moom xam naa ne saay yi xar ma boole la ci rek nuy na moon ñang ak ak ak yow ah, xam na <laughs> xam naa ne bul xam naa ne nuñ ko waree nii moo tax mu teel a ah, ah, waaye su ko defee comme xam naa ne waxtu bi léegi léegi sax du doy ak yooyu dañ see sooba dugga eh, eh, quickly rek ñu door ci waxtaan bi daxa eh, Dahaba quickly rek ci xam naa ci ci politique bi la ñoo mujjee wala ñu dooree ko sax mm-hmm. waaye gis nañ doore sax lu lu ees ci élection bi nga xamante ne moom lañ moo xew ci weekend bi bàyyi bi NPP eh, this time dem tamit ci beneen élection gannaaw lu xew ci parliamentary bi ñu bari jàppoon ne NPP doole baa ngee wàññeeku ba ñu gis ngeen dem ci eh, forward ngeen jël ñaari toog ngeen ñàkk yeneen ñaari eh, boo ci doon ñëwaat lan moo ndax NPP dañ bugg a taxawaat wanewaat ne ñu ngi fi ba léegi walla lan lan naka la daal ban lan mooy sa jàngat ci élection yi nga xamante ne moo xew ci bu yàggul ci yenn woot si London Kona ak euh, euh, Sanyang ak euh, beneen bi ma ngi ko fàtte. waaw Marakisa Marakisa woot. Marakisa woot waaw si laajte boobu noonu. Mm-hmm. si li nga xam ne. génné nañ si by élection bi passé euh di la contane bu baax si lacc bi nga ma lacc laaj noonu. waaw euh, gis nga parti sonne political party euh, man dama di wax né ba légui <clears throat> suñ taxaway si parti bi dafa des. parti MPP Wow. Euh, xam nga suñoo waxante dëgga taxawaay ñun euh, euh, NPP kilifa yi seen boppa parti bi boppa waaw si kilifa yi ñi nga xam ne exécutif bi hmm. seen taxawaay dafa des si NPP bu baax gis nga élection suy jot si hmm. dafa laaj préparation bu baax a baax a baax Politik diggantaan da nga wara jëli sa politicien si ñu dem ñu campagne ñun suñ campagne légui dafa dess gis nga utee ba président baro annoncé turi National People's Party si aaj bi juróomi at yi passé gis nga ni politique bi doon doxé ku nekkaa ngi liggéey ku def sa warugal ku nekkaa ngi puus doh. Ya dox mitin yaa ngee dox woot mitin si su su fekkee ne dem nga ba yow yàlla jox na la ndam bi nga bugga jox nañu ndam biñ bugga muy 2021 presidential election léegi yow nanguwuloo continuer lii nga xam ne yaa ngi ko door depuis bañ annoncé National People's Party si aj bi up to date yaa ngi tayalloo nit ñi yaa ngi discourage loo nit ñi yaa ngi frustré parti bi. ba ba loolu tuuma la de. <clears throat> tuuma la du tuuma. dëgg la wax ni xam nga tamit loolu am na kilifa parti bu ñu ko dégg dañoo wax ne. waaw lan lay wax ni fan la ko teg déedéet kan kan moo si discourage. waaw déedéet ah kañ kañ parce que tey tey président Barrow dafa liggéey si réew moo réew mi loo xam ne. Mhm. dafa liggéey loo xam ne si réew mi taxawal parti boo xam ne muy NPP. billaahi wallaahi tallaahi politique bi noonu la war a doxee noonu la politique bi war a demee gis nga bàyyi élection sii ngaa gis ni yëpp bàyyi élection sii ngaa gis ni yëpp propre campagne amu si depuis loolu passé national assembly election yi da ngeen daan forty to 18 loolu lajj bu rëy la. waaw moom laa laa wax nii si politique buñ si dugut xam nga pila bi lii da nga ko sampa te lan moo ko du foundation bi politicien nag moo amee foundation bi xam nga lan moo ñu manqué. xam nga lan moo ñu NPP. Saa Dawda Kairaba Jawara. tati two years yëpp PPP. waaw gouverneurs yi alkaali yi euh, ak chef euh, euh, yi ñëpp dañ bokkoon ak député gouverneurs yi ñëpp a daan politique. Yaya Jammeh twenty two years am yëpp. gouverneurs yeeg député gouverneurs yeeg alkali yeeg chef yeeg ñëpp dañ daan. dañ daan concentré. maa ngi dañ bëgg a soppi dañ waaye tey tey jii. Hmm. su Adama Barrow toogee nga ne gouverneurs yi ak alkali yi ak député gouverneurs yi nga nga ne da leen a génne si politique bi. yaa ngi wàññi doole poti politique bi. waaw Gambien si loolu la Gambien si loolu lañ bëgg ñooñu dañ fa war a dem liggéeyal nit ñi ñu bañ a politique parce que buñ politique dañu dañu war a far. waruñoo far non non non loolu man man ko soog a non ñooñu sax ñu ngi politique. waaw ñu ngi politique sax non ñu ngi ñu ngi politique. xanaa kay loo waaye feeñuñ si comme niñ si war a feeñee. non xam nga xam nga xam nga sa président bi bi ngay wax ni tey bu mu doon ñëw président Ba bokk na ci ñu diggee woon ne ñooñu bu moom bu ñëwee loolu dina dàkk waaw parce que loolu moo fi nekkoon te loolu génn te te loolu nag moom moo ko wax de waaye doxalul ko moo warutoon a daga parce que ñooñu ñooy pillar of ah, parti chef yi alkaali yi gouverneurs yi député gouverneurs yi ñooñu ñooy ñooñu ñooy spécially alkaali ak chef ñooñu ñoo amee ñooñu ñooy pillar of politique am ñoo amee nit ñi ñooñu ñoo amee politique léegi su fekkee ne ñooñu da nga leen ci génnee Oke. ok léegi ñoo gaañ yaa quickly léegi ci ci ci ward election bi balaa ñu move on tu leneen hmm. ngeen ngeen dem contexte ween ñaar ngeen ñàkk yeneen ñaar loo loo gisee ndax loolu dafa loolu utee na ak bu baax li nga xamante ne moo ci parliamentary election bi daanaka ngeen ñàkkal euh, combo bi yëpp hmm. benn togg rek ngeen am loolu ñu bëri jàpp ne jël bu rëy pour NPP. ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo polokitut wala ñu ñu ñu war a def wala li ñu war a def defuñ ko ak yu mel ñoo ñoo commencé taxawaat wala yow noo gisee daal Nda president bi lim wax moo tax ngeen wala ba legui dess na man ni ci ci affaire moy mhm. euh npp dañ wara restructure suñ bo passé politique waaw non congrès mom dina dem non xaaral wala lena la si congrès naka ngeen mën structure demu leen congrès waaw congrès dina am te congrès dafa war a am waaye gis nga nag mo wax la ma ne parti bi nañ dem congrès xaaral wala lena si congrès tamit mhm gis nga nit ñi niñ def congress congress euh, by right ci constitution bi sax parti bu nekk da nga war a dem congress every two years da nga war dem congress mm. te yéen seen parti bi am na two years demu leen waaw déglu rek maa ngi ñëw foofu ah, euh, suñ demoon suñ njëkkee woon congress ni kon tey dinañu doon dimbale si lu bari yang ngi maa la parce que gaal gi tamit su fekkee ne gaal gi dafa bari capitaine te capteur bu nekk ne mun na gaal te munuñ gaal soo gaal gi du mun a costé. kon leen da ngeen def lu leen ne am loi bi lim teg non loi bi lu mu wax. ñu bëgg nañ ay bëgg nañoo dem. congrès waru leen gars am na sax ñu doon ak yu ne balaa nga doon dem. Euh, élection sax. Hmm. président parti bi taxawu dafa waroon dem congrès demu leen léegi yow ngay ñëw toog. non ñun ñun ñun parti bi baa ngi nii dem ngeen ay. waaw di taxaw si tuuri parti léegi non congrès. congrès dafa war a am si parti. loolu loolu moom lu wóor la. So nyaka nyaka nyaka nyaka dem ñàkk dem congrès bi tamit. da nga yàq ay sart daf ñu gëtën Nyaka yaaxuñ sarta de. sarta ay dem déedéet ñàkk a dem congrès bi tam dafa gëtën parti bi dafa laal parti bi dañ war dem congrès soo demee congrès si nga mun a xam yow fan nga féetoo ak sa parti bi daka la taxawee congrès dafa moo gën a important sax si lifin waaye congrès ñaari issue moo fa nekka congrès hmm. eh, eh, muna jagar Kongres muna naa ya. kongres muna isi chow Kongres muna isi enmity congress kongres muna isi lu nek Kongres man pati bi bam taxawé fogna ci lañ warona tawal suñ structure ba paré dem kongres mais nah, kongres bu yaxé parti political parti bi ñafa né gëmuñ parti ah congress bu yaxé parti déedéet nek li ma de oh, ma ne tamit ñaam bu toy la fam fam ko expliquer mu démé mu dafa dam congrès place la bu fekkee yow danga nekk ci place matéo ko bu ñu la fa génnee danga war a topp ci ginnaaw ñu toppoon sa gannaaw su ku munut ku munut moom ku munut politique moom congrès moom bu fa bu fa xaala su fekkoon ne sax dañ la jox place su fekkee ne dañ la jox place si parti bi nga am ko te antaluloo sa place gi mënuloo ko yóbbu congrès bi moom bu yeboo bu fa eeda ok léegi ñu déglu moon moon ñang nga ñëw ci loolu su fekkee am nga looy laajte Dahaba ci Euh, euh, MPP by election bi ak ñàkk a dem congress bi euh, ñu bari ñu ngi leen di duut baaraam loi moo ko sarta moo fa teg sarta IEC waaye gis nañ almost over two years léegi parti baa ngi noonu ba léegi defuñ congress te ñu ngee dem si ay jongante election waaw lu doy waar la loo xam ne nii waaye nag loolu IEC leen say joxañ baaraam because moo mooy ñu nga xam ne moo govern parti si mu leen war a wax ku ne leen nga war a def su nekkee ne am na parti bu waroon a dem congress defu ko kooku ñu wax parti bi dara IEC ñi ngi leen nga xam ne ñoo war a wax ñooñu loolu te taxawuñ si ñoom la ñoo dut baaraan lu si munta xew ñoom ñoo ko def but congrès maam lu lu lu lu saa wax dëgg la bu ko xaj gis nga fay xëccoo ñëwee rek di di lifin mun naa wutee mun naa am te congrès su amoo man tey NP bu doon def congrès su ma neexee mu bëgg a peut mun naa dem na dama bëgg a taxaw represent West Coast so léegi nag dama puus loolu foog moom foo ko fekk si parti yi mag yi muy Sénégal muy anywhere si àddina bi bàyyi force kalaate am fa kanaa kalaate mooy am mm-hmm. afta dat mm-hmm. kilifa gi oote waat ñu seet ñin tànn ñu ne leen léegi comme lii am na mm-hmm. ku si ji leen fexe ñu liggéey ñu topp loolu warut a tax du am non loolu warut a tax du am non ñàkk bi moom Amadou d'accord moom ñàkk am bi moom daa ñun sax waaye man loolu du ma si joxoñ baaraani tuuma NPP defuñ dara ki leen ko war a sant moo ko war a santaane te moo ko war a topp waaye est-ce que nit ñi duñ gisee ne parti président bi moom moo tax dede dede dede dede dede dede dede non non déedéet ñu ñu duñ ko gisee man mënuma ah, bées si loolu bu ko loi bi mënuma man tam mënuma bées si loolu waaw mais ma rek ma daaneel mhm. man man mënuma ko gisee noonu ay si ñoom ñooy ñoo war a wax nit ki mu dem congrès dafa war a dem ko kon ñoom ñoo jalgati plus nag ñii li NPP bi foo ma nangul kii si lu mooy wax dañ dem force by election ñaami na an euh, kër jarga woo ah, ñu win ko ñu ne am nañ taaw bu jigéen bu góor mhm. NPP time boobu nu ñu doon liggéey seen chairman yi ñu doon liggéey si woot si mm. man demoon naa ci euh, euh, Kër Jarga gis naa Sarr si Sarr moo fa nekk waaw Amar Sarr ñu doon liggéeyee ba nga gis ne Awa Diop wén mm. na fu nga xam ne moom Awa Gueye mm. ñaame na di same thing gis nga dat move politique bu ñu amoon ñu continuer ko ba si présidentielle bi ñu gis ñi ñëw ñu am but after ñu bàyyi ne xam nga lan xam nga lan moo ko lan moo xam nga lan moo ah. lan mooy problème. over confidence waaw léegi oh, damaa déggal li nga wax. man li nga wax. Mm-hmm. maa ngi déglu fi nga wax. waaw correct ñëpp ñu si réew mi ñu ngi bàyyi xel luy dox. waaw correct gars yi dañ win élection naagu. very gars yi seen lekku neen si nit nekk si seen kanam pour bi den rëy. good ubbeeku te politique du rëy. du dijaan du tëju. thank you politique ubbeeku mm-hmm. dem si ruut si suuf. ñooñu ñu lefti neen seen chairman yooyu noonu des nañ jox ñooñu itam cër ñi nga xam ne ñooy seen capitaine si nekk si NPP den dij yi que right ñooñu dañ leen a xam ñu saf sapp yi si grand place si everywhere ba koo si gis pour nga wax ak moom seen coalition partners yi gis nañu seen coalition tam yeneen parti yi nañ ba gisasuñu seen bopp ci problème boobu si NPP waaw na sometimes ku dee meeting seen seen caabi something moo dee am hard kii they are not open den digi den diis te nit ñi kenn moomul leen président bi wax na ko mun ngaa moom sa patwa moom la nit ñi so moo tax ñii dee have to ñii suñ seetaatu seen boppa dañoo gën a dañoo gën a revise nga win via élection fu mu gënoon a méttee ñaari yëpp kër jarga ñaame na time boobu mu ngi métti time boobu xamaguñ lu NPP di saf nga ñëwaat présidentiel nga win lu am doole nga tey nga taxawal ñaari député nga ñëw wiin da nga xalangu foofu noonu jogaatuloo si bàyyi élection kii mu la woon ne propre campagne bu waroon a am si bàyyi élection bi si foo woot si amul. nga wiinaat si ñaar loolu ba léegi daanu tey am lu tax nag parti bu nga xam ne yaa nekk si nguur élection bu ñu génn benn nga daanu. bu mag bi léegi nii si des yëpp ngay gën di fowoo di gën di dem gannaaw kon ko dafa jot pour mu taxaw. ok seetaat boppam waaw commental foofu ba den su ko defee ñu ñu. déedéet man la moo dooleel foofu noonu. waaw waaw non lu wax daf la lu mu wax moo am. ok soo dafa mel ni kon ñu jàpp rek parti. xam nga xam nga man lan laa gom si euh, politique. Mhm. gis nga speed bi nga jógee. speed bi nga jógee. speed boobu noonu am na nooy demee nga overconfident sa boppa da dellu gannaaw gis nga gis nga ma walla leena euh, président baro bi mu jógee bi mu bi mu dooree five years am bi liggéey bi nga xam ne liggéey na ko si réew mi suñ fekkoon ne pare nañ pour jàppale ko dëgga dëgga ñu jël politique bi jox ko politiciens si ah. billaahi wallahi tallahi tey lum tek rek dañoo ànd ak moom xam nga fan la fan la man fan la laaw mooy man suma ma doon euh, président baro mu dégga suma wax gis nga ba mu wiinee 2021 election bi si guddi googu noonu rek la du war a dugal government bi rek government am bu ees bi rek xëy ak moom ok kon ubbi nga buntu bi ñu dugal ci boobu dugal na government bi kon yow tamit an dafa da nga bokk ci gambeen yi nga xamante ne depuis ba toog xaar boobu noonu ba barki démba njaay announce new government yow ànduloo ci. boo sañoon mu def non non man ànduma man dañ ko waroon a. coalition government nga ñëwee. waaw ci tàng tàng waaw waaw coalition government nga ñëwee lan mooy coalition government. ak lan la la coalition government liggéeyal. parti bi ñun ñoo ko liggéey. coalition government yow da nga samp sa parti kii samp parti kii. ba mu juróom ñaar ngeen booloo ngeen booloo tuggee la. ngeen ngeen utu leen da ngeen ñëw ngeen ngeen ngeen génnee kii. waaw dañ kooku dem ñu am ko. waaw ngeen génnee kii kooku dem. onasaan nga li ma waaw ngeen génnee ngeen génnee ñu. waaw moom sax bañoon na onasaan nga li ma waaw ngeen génnee ñu waaw.